waaw salaamaaleykum Sénégal maa ngi siyaar si nekk rek ma di la jox sa wàccuwaay. moo tax bi ko Ousmane yëgee. mu wax ne bu fi Ndiaga mii teewee mel na ni moom Ousmane Sonko moo fi teew. Euh, gis nañu euh, ki nga xamante ne mooy Cheikh Bara euh, ñaan yi nga xamante ne organisé na ko tey mu réussir vraiment mu réussir parce que amoon na mbooloo trop vraiment après maa ngi gis sax benn imange bu muy séddale bracelet ku nekk. <laughs> Eh, mu ngi noonu daal affaire bi réussi na di ñaan yàlla la yal na yàlla nangu ñaan bi waaw di wax Cheikh Bara rek moom moom moom yàlla ko yàlla defal ndimbal daal eh, te wane ne ne moom eh, vraiment nit ku nit ku gore la nit ku dëggu la voilà tey gii bu ko neexoon bu jegee si lii mu doom toog na na man daal naa xam sama bopp quoi parce que comme tey lii rek mu jural li may wax si Ousmane Sonko mu jural ma coono yëpp kon naa toog mais nag dute tee mën naa ànd ak moom waaye naa noppi loogu yëpp fekk ko si tey la gën a mën a wax tey la gën a mën a defendre défendre Ousmane ko waaw te li muy def nii ñaan mu dajale mbooloo si këram def fa ay teranga lépp vraiment euh, Cheikh Bara ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàlla may yàlla gën laa taxaw waaw te incha allah comme ni nga ko waxee rek 2024 euh, moom sonk lay bokk gañe élection yi. Sénégal tegu si yoonu développement ba ku nekk rek gis sa bopp baykat bi gis si boppam nappkat bi gis si boppam ñaari facteur yooyu rek bu doxee si sumu réew rek am réew pour mu développer day yomb fu dëgg neex yàlla mu ngi noonu kon Cheikh Bara ñu la nga waxati jaajëfati rek di la bu baax a baax di la ak yàlla suñu boroom yàlla taxaw la saayir ak baatin mu ngi noonu ma tëjee ko nag si euh, parrainage bi di leen wax na rek ngeen toog déglu fiche bi dinañ ko jot par A ou B dinañ jot fiche bi waaw parce que xaw ma candee la faal xaw ma moomul moomul fële ni mu tudd waaye moomul DG ab DG rek kala ab DG kese la fa waaw te justice ba jógee ndigal justice ba joxee ndigal yow li la war mooy accepter mooy maanaam wuyu wuyu décision justice mais wala wuyu décision état parce que ñoom seen yéen nekku si waa kay donc jërëjëf Cheikh Bara waa kay